sarax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa combat royal ba war a dox ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo bile combat depuis que nekk ci loxo yoon ba léegi am na fulu bu ca nekk loolee moo waral sunu làmb ba mu xëyee ne fulu autour du combat royal mbiri Modou Lo Ama Baldé dara leeratu ca biram ñi ngi manager Modou Lo la mu xamle mooy rien ne peut empêcher la tenue du combat amul lenn lu mën a te combat bi am waaye li jaaxal nit ñi la ndëmal xel yi mooy waxi Modou Lo ja démb ca Bantamba la xamle bu bokkul gis-gis ci combat bu leen soxal day jaaxal nit ñi biram ñi ngi ne combat bi dana am Modou ne combat bi du am bu Luc génnul ci kaso bi loolee moo waral sunu làmb génn ne bile combat dara leeru ci rax ca dolli ne bu combat ba amul Ama va-t-il restituer les 25 millions Ama Baldé mi nga xam ne jot na avance ba Jules Baldé takk ci mbuus ba mu dëgër daal yóbbu ndax combat bi bu amul 25 millions yooyee Ama Baldé dana ko delloom déet Tafaatin le géant di bawal boroom taq ci ripp génn na ba wax ak Eumeu Sène altine la Eumeu Sène génn wax ci adversaire yi Tafaatin yi koo jàpp ne war naa mën a bëreeg Tafaatin mu ne Tyson 2 yile kaddu bokk na ci li metti Tafaatin ba mu xëy wax soxlaam ce n'est pas à Eumeu Sène de me des adversaires loolee la Tafaatin xamle Eumeu Sène damaa bëgg nga toog doo sama manager ba may wutal ay combat bokkoo ci sama staff ba naan ma kii nga war a bëreel ak kee a a Eumeu Sène la le vrai combat c'est entre lui et moi bu fekkee am nga fit rek jëlal sama avance xool yow borom taay si nga bu la seytaane jayee ba nga jël sama avance dootoo ko defati man gone gu ndaw laa am naa doole mën naa bëre samay loxo neex na boo amee fit rek jëlal avance bi bu ñu jàllee ca combat yi ñuy dox ak combat yi taxaw dañ fay fekk diggante Kalmu Ndour ak Ngel Jon Assane Ndiaye borom Bawol production ma taxawal diggante Mbay Guy gi ak Maam Balla ñu na ca diggante Kalmu kenn du ma ko yóbbul ñu ne ko prince mu taxawal diggante Modou Dia ak Thiat Samba Fall borom Sam production da ca ne manit kenn du ma teree taxawal Samba looy togg mu ne li may togg kay ñor na ndax diggante Colifay 2 ak général bu na jàpp naa ko le 4 avril Bombardier B52 bu dootul yàgg ndax ñu ngi démarché samay combat ci ay fan yu néew mu taxaw jéey production moom it ñëw bokk ci su mboxloo bi indi diggante jarada ak mbaytinte bu ñu jàllee ci combat yi war a am samedi ak dimanche dañ fay fekk diggante Ada Fass ak bébé bismi bile combat le 11 janvier la ci Iba Mar waaye Mbay Jàllo ñëw na joxe xalaatam coach Mbay Jàllo la mu xam ne mooy Ada Fass moo gën a technique bu dee tafaasaar moom ca combat dimanche ba la ñëw diggante deux ziga ak kaagourde loo xam ci bile combat mu ne coow li coow li dimanche lay leer waaye li am ba des mooy combat bu explosif lay doon diggante deux ziga ak kaagourde ku ko lijjanti lëj 2019 bu faasit ku ko lijjanti lëj première défaite Gris 2 ñu ne deeta waaye Gris Bordeaux bu mag année balance ñu dem ba at mi des ay fan ñu dàq Papa loolee la journal ba xam le ne ñett yooyu moo gën a fës